ku mu dubli sa bopp sa aajo faju borom Touba miri na doomi sëñ Fallou ji nga xam ni dafa jubóog boroomam nangoo jaamu yàlla nangoo sonn ci boroomam ki nga xam ni dentul dara lu jëm ëllëg lu mu am jox na ko jaam ñi jaamu yàlla ko gënal li mu am gis ñu ab laat ne woon Basiiru mu ne ko Mbàkke mu ne ko maa ngi ne la la jàkk Basiiru mu ne ko Mbàkke mu ne ko wéyalal wax la sëñ Abdou Xaadir ne woon li ngay xëy di ci gont bu ko ba Seydou waaye déedéet xam nga Seydou Serigne laa wéetal man mu wax ma ci sëñ sol Fallu lool moo tax yëmale ma ko kenn man man sëñ Bass Fallu dama koo def nii hors série dama koo ber te kii yëma wax li tax ma ber toog naa nga toog sëñ Xaadim loo toog nga am loo ko wax ci moom moom it mu daal koy ber kon yow Mbàkke yow la kenn amul sa pay kon Seydou sa jur wii nga xam ne moo la mel ni ba nga dajeeg jàmbaar jooju ñu ngi koy sant di ko gërëm ñi nga xam ni nag ñett leen daaw ba ren nag ñi ñi ñi ngi ñi ngi ci ñett rek ñett daaw ba ren ñëpp a ngi déglu waaye ñoom ñi ngi ci ñett rek muy soxna maam jaara soxna coro ak soxna ndeyka boobu ba tey nag ñoom Seydou ñett rek lan Seydou ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ndax bis bi yéen a ko taaral ndax ay soxna yu baax boo ko amee boo tàntee day rafet ndax kenn ku ne dana ànd ak ñi mu am jël yére bi gën a rafet ñu ko dar ñëpp sañse baas bi day fees lépp ay rafet kon Seydou ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm muñal ngeen ko taxawu ngeen ko jàpp ngeen ko te jàppale ngeen ko ndax nag ab doom wonaara moom sag rek la am oto bi mën naa rafet mbasin bi rafet waaye poos si dara mën na caa bañ ne waaye jigéen du mën a muñ te am jom moo moo mën a def ak ñun waaye li ma leen di dénk mooy jigéen bu amagul jëkkër àpp sàcc la bu amee jëkkër sàcc na bu amee doom tëj nañ ko kaso ne bu doon di màgg yàlla yan ko mu génn kon nag sëriñ bi sëriñ sëriñ Omar Bousso la ñuy jébbal kàddu gi. mbokk jullit yi gannaaw ñu sant yàlla jël si bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal baax Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla ko suñu borom loolu te wéral ko di jël nuyoo beeg seer ci loxol sëriñ Cheikh Oumy mi nga xam ne moo ko teewee jataayoo. sëriñ Abul Baraka waaye moo fi teew tamit jataayub Cheikh Mahamadul Basir kon bu fi teewee nuyoo bi ak siyaar bi yëpp ñu ko jëlee teg ci loxoom lépp dana mat sëñ Cheikh Oumy ñu ngi lay siyaare bu baax di nuyu tamit baax ki nga xam ne suñu lépp la muy sëñ Mourou Mbacke moom sëriñ Abdoul Wudóor sëriñ Abdoul Wudóor di doomi sëriñ Modou Faramata sëriñ Modou Faramata di tawub sëriñ Afia muy ku jàmbaare ku bëgg mbokk ñu bokk lépp maag moom taxawaayam rafet lool ah, yi ñu ci yëkkati nag du bari kaddu yi ñu ci yëkkati mooy sëydu ah, eh, dañ lay sant bu baax kàdd yi ci turu waa Géejawaay yëpp sab taxawaay ak sa yitte sab taxawaay ak sa yitte ci mboolem ah, jataay yi am ci islam lépp ñëpp ràññee nañ kon dañ lay ñaan baax suñu borom guddal fan yokk wér ba liggéeyee ni liggéeyal Serigne Touba lépp it suñu borom may la kàttan boo ko àggalee ndax bu Alaaji Samba Diaw waxee daanaka jël woon ñuy yëkkatiwaat kàddu ndax Alaaji Samba Diaw ah, yàgg na ci toolu Serigne bi lu masaalik rek la ci tàmbale waaye yàgg na loolu ba tey mi ngi fi sëñ Aliou tamit ñu koy siyaare ak Serigne Babacar Mbaye bi fi nekkoon. te ñoom ñëpp ñu ànd ngir taxawaayu Seydou tax ñu ñëw fi kon ñoom it ñu ngi leen di ndokkeel baax bu bu alaaj Samba Diop jëlal kàddu rek doy na sëkk jataay bi dafa yàgg te sëriñ bi tamit yitte yi dafa xaw a bari moo tax dañ koy tënk foofu rek di ñaan yàlla suñu borom ñu fekk waat kàddu yu bare bari suñu borom barke yi lépp la jëf jëf Serigne Omar Bousso imam noo ngi lay sant noo lay gërëm ku ne Mbàkke nag bi nga ne Mbusoobe seen Mbusoobe sa maam ak maam Jaara Buso noo bokk ñaari waajur sama nijaay bu ko sëñ Tuubaa waxee sëriñ ne Mbusoobe sa maam sama baay taxawa seen Mbàkke Kajoor a koy dégg soxna Awa Buso ni seen Mbusoobe soxna Aminta Kan ni seen Mbusoobe bi sëñ Tuubaa ñibbi àjjana ni seen Mbàkke Buso taxaw ci kanam tey jii jumaa yéen a ko yor yéene naan sami laa liman xam ne déw ñëpp n raba naa kala xam yal na yàlla yàggal sa taxawaay Serigne Modou Mbacke Abdou li ma naan noo koog maa ko dañoo bokk ful waaye bokk ni ñun waaye Seydou mii yow yaa ko diggante ak Seydou bu leen dem Seydou lu mu xëyee ngoon balaa bët a set Abdou Ndiaye leeral ko fi mu jaar lépp ak li def lu mën a xew na man nañoo bañ a gisante ñoom ñaar weer waaye dara siy dund ko umb te loolu mbàkk lépp yow yow alaaj sëñ Cheikh Oumy ak Serigne Taïr moom seen Mamad Fadal Seydou du xëy soo ba ngoon te tuddul la Seydou Tour ci nu ngeen ko def nu ngeen ko dimbalee ak nu ngeen ko taxawoo afe anta ak mbàkke anta nag bokk ndey ak bàyyi sëñ Moussa Ka dafa ne soxna Anta wàcc na am na yaaram am na ilimaan gàllewu leen ci maaram Cheikh Anta Ba mbaa ko joxoon lii baabaan jox ko Daaru Salaam ak Gaawaan Cheikh Afia mat na ilimaan su bëccëgee mu dem jàkk bu guddee muy naa ko lay rakk yow yoonu murid bu doon nag la bu mu ko rey quatre sa sekk yàlla yàlla def taxawaay sëriñ bi nag sa doom jii damaa yëkkati kàddu gi di ko jox mu wooma ni ma li ma summiloo sama mbaxana sëñ Mountakha mu sëñ Modou bu sëñ nee na ma li ma summiloo sama mbaxana lem loo ma samay tànk toogloo ma ci suuf looloo ma noppi loo kii nee na nee na li ma sumiloo samay mbaxam lem loo ma samay tànk toogloo ma ci suuf looloo ma noppi loo loolu weesu li ma waxoon sànq ni sëñ Tuubaa nee na wa in tudaaris man yakunu akbara min koy xaawilu saamana noo taxa ka an yoroon musalan li xaaga pour di loolu yi daay tiital xaaga mooy nii nga def nee na moom li mu bëgg mooy yow la ñuy déglu loo wax na wax loo bëggul def dix ci suba lañ xëyee Touba soxna baa ni mu toxaa sa rakk baax ñi di sa jigéen yabal leen te nee na nag soxna baa ni xëyee ma gontam ni sëñ mu toxaa te fii nga toog yaa bii sëñ mu nee na kon nuyoo sëriñ bi mi ngi ci sa loxo lépp soxna baa ni duggaat na ci sa biir nun nag Mbàkke maa ngi sant soxna baa ni loolu dama la koy seereel maag Seydou mii ñu ngi koy sant ñu ngi koy am na fu mu ñu jëlee am na fu mu ñu yóbbu. changé na suñu carte d'adresse changé na suñuy fréquentation changé na suñuy base. am na façon yëngalin yoo xam ne sax ci micro léegi rus nañ ko ngir moom lii Seydou wax ñun ñëpp ci lañ nekkoon yeewee bu topp jànkat yi ñu yeewee. bu ma gisee nit di topp nit ba ci oto am ñuy kaas du ma ndax daan naa ko def moo koy wàññi de li tax may wàññi mooy Serigne Cheikh Oumy mii suñ fa bàyyi. man mënuma koo fay. wax nga dëgg yombut. Oh. yéen a ngi ci der bi ci kurus bi yéen ci alquran bi. tey si suba sëñ Bass Fall fii nga toog la toog ne naa dugg ci baas bi génnaat. sëñ Basiiru doom bi sëñ Fall ni mu toll ci yoonu murit ñëw dugg ci baas bi ni du ma yéeg ci benn kër fii lay dugg ci baas bi toog ci fauteuil bi seere ay kàddu tal ma ñaan mu ne maa ngi delluwaat Tuubaa ma ne ko nañ tekki baas yu doy mu dem ba ci oto bi ma ne ko dama lay santaat di la gërëmaat maa la jox téeméeri junni bii nga paase ko gasoil téeméeri junni ngi nii nga mm. paase ko gaasuwaal ndax yaay sëñ Fallu fii wuti lu ma la sëñ Bas benn yoon xam naa bu baax kew doon sëñ Bas mu sëñ Fallu yéen bokk sëñ Fallu te yow sëñ Fallu dana mu laa ñàkk sëñ Fallu dana mënut maa dafa am alaaji sëñ Cheikh Oumy mu teere wuy ji sëñ Fallu ne mënumaa ñàkk alaaji sëñ Cheikh Oumy alaaji Cheikh Oumy gi nii sëñ Fallu moo ne mënumaa ñàkk te am Basiiru ba mu jaral ko mu tayle jarbaatam muy sëriñ Maxtaar Silla jarbaatam la tayle ci sëñ Basiiru doomi sëñ Tuubaa bi mu ganee jamono sëñ Fallu ne tuddee naa ko Basiiru yeewi ko jël ko jox ko sëñ Afi Ñaŋ benn doom la ci bëggoon sëñ Basiiru mu sëñ Fallu la kon lu mënul woon ñàkk la moo tax mu yeewee ko jox ko suñu affaire suñu Cheikh dama la doon sant rek. kaddu gaa ngoo. yàlla na moom yëpp sa mbaaw mbaaw nu mu am sa njanoo. waaw ñu ay sa badoor. ay baayu koy siyaar moom it mi ngi fi boobu koy nuyu bu baax. Cheikh Oumy Mbaye yaa ma moom ya sa baay baax Yakob mi fale loya moor sa rak sa taalib bi dafa yónnee mu soxna Bali moom Cheikh Mouhamadul Mountakha kàddoom dugg ci sa biir kàddu muy nit ku baax di jàmbaari Cheikh Mouhamadul Mountakha di doomi Serigne Sonyu bokk ndéem ma Abdoulaat Marema Jaxate soxna Jëng si la libaas joor si la libaas fat si li libaas libaas ma paati ndumbi jëng maam Njaay sin ba cam ñël ko ba daanu sumum laak faal gomaay ba soxna baali Muntaqa borom fondation bi Baay Faal bu Cheikh Mouhamadoul Muntaqa soxna Maguette Gueye li yaayam tudd Serigne Kab Balla Yacine Fall Yacine Fall buruñ goraan dee calaw gan ki buruñ buñ demal di calo suur maa joor ma xuri jukkuli maa samba takko damit tiñ imburuñ ngoone borom Kajoor Bawol magi Serigne Bass sama xarit balay sa man nga sëkk ndaw man nga sëkk ndaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi Cheikh Modou Moussa Fall la tuddee Cheikh Mountakha mi Serigne Touba mu yar ko jox ko jikkoom ak melokaanam Mbacké doy nga ko fu ne maa ngi yow barki démb Italie bi su Saliou Seck yàqaloo ko dara Mbacké yaa gore yaa man li nga waaye soxna baamee woom balay sa yàlla yàlla gudd sa fan Serigne Touba Xaadim sa fi mu tëbbee rek la tëbbee Serigne Falilou soxna jaara Mbacké ak Mbusoobe Serigne Fallou soxna aw Buso Serigne Mbusoobe soxna astawala ndumbe daanu tafsir mbàkke ndumbe balla si buri sëñ mbàkke maaram fallu bu sa jeexarew ba fallu aw bu sa jeexarew ba zalika fadlullahi yutihi man yashaau aw fadlu azim kon na ma sëriñ waaye ku jaaxle woo sa baay maamu maamu Seydou si dafa lu def léegi defal ko Cheikh Oumy Mbacke faddilu mi toog lii mu a defal sëriñam Cheikh ma Bachir bi mu fi ñëwee léegi ci suba da koo defal ma fekke bi sëñ Bachir ñëwee toog ci mbaas bi ñaanal ko ba pare na ko damay dem daa yëkkati xaalis moom sëñ Bachir bu takku jox ki maanaam na ko joxal ma Seydou maa ko barkeeloo ci bis Seydou téye ko ba sëriñ bi jóg bay dugg ci oto bi mu yëkkati téeméeru junni teg ca la ko sëriñ bi joxoon joxat ko defaat naa ko adde ma lekk sa xaalis loolu da def léegi ci sëñ Bassirou ma fekke ko bu la ko defalaatee nii ci digg baas bi ñëpp toog dinaa ko waxat loolu defal sëñ Bassirou léegi ci suba ñaanal leen ko mu wértu gudd fan te eggale ndax mi ngi ci yoon te mi ngi doxal te yàqalul sëriñ bi dara te bëgg na sëñ Bassirou yemale ko kenn loolu laa doon wax maamoon sëñ bi bu waxee dañuy ñaan ñun ñu des fekk Fallou Seck léegi damay yelwaan waa koñ bi ak mbooloo mi fi ne su sëñ bi jógee bu kenn dem ñu séddale reer yi dama bëgg ñëpp reer reer yi doy na xéewal yi doy na ku amul taxi ma jëlal la taxi ku am oto ma yóbbu la ba sa oto nga dem ma yeewi ñëpp du ma dem du ma dikk yeewee laay def jëlal nit ñi oto ñu ñibbi ma bëgg ñëpp reer reer yi doy na xéewal yaa ngi ci biir suñu noppee fàllu sekk indi tabala yi ñu sant Serigne Fallou. jërëjëf sëriñ baa ngi nuyu ñëpp mbooleem ñi fi teew. nañ déglu kàddu Serigne ah, wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di nuyu ci nuru Serigne Mountakha mi nga xam ne moo ko jotaayu Cheikhul Khadim. ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi di ko teg ci loxob am Amdi Fall mi tuyat jataayub Cheikh Ibra di ko teg ci loxob euh, Serigne Amdi Fall mi toog jataayub Cheikh Ibra ak Serigne Bass Anta Niang mi toog jataayub maam Thierno Birahim euh, mbooleem ku tekk ci baas bi rek ñi ngi leen di nuyu di nuyu Serigne Modou moom Serigne Abdoul Wadoud mi ngi ni toog am na lu ma li ma li ñuy war a wax muy suñu digganteeg sëriñ bi dana ko wax bu noppee man nag dafa am lu ma bëgg a wax sama digganteeg yéen muy sama digganteeg Seydou Sy sama xarit la loolu la yàlla dogal di sant mboolem ku fi teew rek lu ko waaye jëfal wax na ma ñu ngi ciy ceppi ay nit ne ku lu ñu tudd la waaye mi ngi sant ñëpp mbooleem ñi nga xam ne moom lañ bokkal Sëriñ Tuubaa yi ñu teew fi mbooleem ku fi teew rek dama fekk la xam naa sa sant rawatina sëriñ bi nga toog nga xam ne mooy sëriñ Abdou Aziz di sama doom di sama xarit sëriñ bi jërëjëf ñu ngi sant mboolem seexu naa di suñu ñu fi teew la ak seen jiili di sant mbooleem ku fi teew rek rawatina Abdoul Fatah teew na fi ak galas pël rawatina sëñ Abdoul Fatah mi toog di jataayu Cheikh Mamadou Bachir di leen jox nuyoo njabootu ak sëriñ Fallu gépp di ko jaarale ci sëriñ Abo mi toog sunu sëriñ teg ko ci loxo loxob Cheikh Mouhamadoul Bachir mi doon jëwriñu kër gi ak Serigne Abdoul Fattah ak mboolem njabootu Serigne Touba nag dafa bari ñu mu tuddee bi waaye Seydou Seydoum Serigne bi sëñ Fallou yi Serigne man nag dama wéet ak moom wéet yoo xam ne doom rek laa ko wéetal ci moom ba xam ko lu baree bari moo tax lu ma def loo danaa ko def man démb laa jóge Gambie bi may egsi fii boobu une jot na wala wala wala wala mu jege. waaye Seydou jaral na ma lu ne ci àdduna ndax man sëñ Fallou sama sëriñ te maa moom ñoo bokk sëriñ ci loolu laay dox kon Seydou jërëjëf booleem ku ko waay jëfal rek yëg naa ko te wax na ma ko tudd nañ ci nag ay nit ba tudd ci Antoine léegi fii antuwaan nag ba muy def teraanga booba ma nga njaareem doon ab magistrat man fa laa ko xamee woon maa moom nu seq teraanga moom yàgg naa def teraanga ci sëriñ bi ndax ci la juddu xombal la dëkk xombal gii rek la dëkk te gi gii la juddoo bu defut teraanga jël ci lu baax yi kon leneen lu muy def kon tantuwan ñu ngi koy sant ci yow lu baax ku ko def nga wax ko wàññiwut dara waaye du moom dong nag moo la defal teraanga bi ñi la bëgg dafa bari waaye kenn ku la defal ku la ci defal dara rek nun ñi la ko defal ndax nun moom nun danoo amul lu du sëriñ bi te ku ñu jàpp ci njër sëriñ bi ñu jàpp la te Seydou da nga bëggul nit am yaraanga wala murus ci dara rawatina man nag man bis bi may defal sëñ Fallu ku ma ci taxaw ku ne rek yaa may gënal sama bopp alaaji daf maa wax ne ma alaaji baara da cee ñëw ñett ñaari yoon ñetteelu yoon bay mu doon sëñ Tuubaa ñëw Padois maag ñi ànd ba ma ko nuyoo mu ne ma kañ nga bëgg ma ñëw ci bis ba ma ne ko ah bis bi nag da am lu rax ceew loo xam ne raxu ci woon da ngay sëñ Tuubaa te boo ma ko defee defal ko ñëpp kon jéggal naa la booba ko yow bi ñu fa indee ma dikkee ngi toog yéen a ma daal di yëkkati sama di jox ko ne ko ñaanal ma mu ne ma Cheikh ma ne ko Mbakke mu ne ma bis boo ko dee def te ka tax nga di ko def nga xam mooy kan boo fa nekkee yow dong dina la ko jaral foofa laa nekk kon nag Seydou li may jàppale ci sama bis bi moo tax bakkan laay teg sama diggante yow boo gisee xaadim di jàngit nag xaadim mm, patron la ci njàng bi patron xam nga patron dafa dafa dafa débordé ci njàng mi te lu ne def na ko ci njàng xaadim bu doon mere rek mere nañu bari xale yim jàngal te tegatuñ ko fenn bari na oh. waaye gàcca ngaa laa ma man sama mooy sama jànkar la ndax patron la ci njàng mi kon xaadim boo gisee ma di la baatare tamit jóg di taxaw guléet maa ngi koy doog a def ci bis waaye dama la doon war ne la noo ko bokk dama manifesté wu rek kon nag yàlla na yàlla defal sëñ Modou nag donga yaa ngi nii jëf nañ lu baax te kii tax lu ko kii nag dafa wéet Cheikh Mamadou Bachir nag mooy sa kilifa di sama kilifa man waaye as gor la ak jullit la ku bëgg lu baax la te nag man sama kilifa waaye day kilifa gu jub te kilifa ku judd ko am doo ko fayee moo tax duma ko fayee lim la waxit dégg naa ko maa ngi moom jokkoon nañ ci ay 9 heures wala lan mu ne ma da dem ci jàng ya ma ne ko mu ne ma demal kon Seydou jërëjëf man nag bëgguma nuy séq xaalis maag yow ndax xaalis day jeex te luñ séq moo raw loolu gis nga fi ni ñii yi ñuy def mii ku ne de gis man du ma ca bokk ndax xamal tax du ma ci bokk man doomi murid laa man sëñ Fallu sëriñ te mooy sama mooy mooy mooy sama lépp man am na yoo xam ne nii sëñ bi dimbale nañu ko ba noppi ku dund te yaakaar sëñ Tuubaa dara jombul te yii yëpp ay caxaan la waaye li doon dëgg mooy nañ fas yéene nag góor góorlu sëñ Modou gaañaa ngi nii fii la Fouta fare nag du booy leex Fouta fii la fiite du booy leex mukk ca nan jaamu Yàlla te góorgóorlu ji nan jaamu yàlla te góor góor lu ji fii la Fuuta fare du booy lex mukk te ki nu àndal bu ñu ko xamee mat na lim doon na nan fexe ba mat li nu doon rek te yàlla tax mbubb yu rafet yomb na xaalis yomb na oto yu rafet yomb na kër yomb na waaye des ko fii baax kuñ teg ci kuus bi lay da nga xam ne sa morom nañ leen góor góorlu sant naa góor nag man sant naa jigéen ci sëy bu lu defal rek man la ko defal ndax féete dama koy ñeme man te yow man féete na ak yow féete na ak yow kon nag ñu góor góorlu rek te xam ne li moom kenn du ko maye des koy jaay waaye nag ku bëgg dara dangay ngay jéem dara ku bëggul dara nag doo jéem dara te li moom kenn moomu ko kon nag maa ngi siyaar ñëpp sëñ Samba boo demee nga ne Cheikh Mbacke ñu ngi koy siyaar man mm, maag alaaji ànd keroog ba mu ko wooyee ne ko indil ma télé bi Touba maa ngi toog wax naa ba noppi la wax mbakk yi laa koy jox de ndax xam naa ne li mu bëgg dana ko def te lu mu am dana ko ci def keroog ba mu bi ñuy ñëw cëm ci guñu masaalik ci téeméeri million nga maa ko yor waaye mbakk yi ku baax la man nag ba ma koy xam booba ma nga ca nouveau hôtel ca bureau bi booba damay doog ñëw Dakar jóge ca daara ja xam nga mbàkke mbàkke bu ndaw di luyee oto ak lu ne wax naa ko ko keroog nee naa ko man dama lay xam du lii te lii te nag mbir su la dabee nga tiitaru wala nga waneewu ca rek motoo ko mm. te mbakk yi moom wanewu soo demee nga ne ko ñu koy siyaar tey jël nuyoo bépp di ko teg ci loxoom ndax moo fi sëñ Tuubaa ginnaaw bi nag sëñ bii nga xam ne suñ mbokk mbusa mi kon sëñ bi ñu ngi lay siyaar baax a baax sëñ du mm, bokk yaa ngi nii man kii sama xaritam motuma seere ci moom tudd na fi du Kañ tudd na fi Modou Ba tudd na fi ku mm. waaye lu mën a xew ci adduna man mëtër ci ñoom kon nag yàlla na nu yàlla taxaw Modou euh, jërëjëf xale yi say xale lañu mosuñu laa ñàkk a bañ a teg fenn man daaru daaru kañ yi bu ma ko xamee ñoo ñee tax ma xam kon kon yooyee yàlla na nu yàlla sutural euh, di nuyu nag ñiñ ko tuddi waaye kenn rek laa ciy jël muy soxna Bali man sama xarita motuma seere sama digganteeg moom waaye dama ko wax barki démb ne ko noonu bañ lay miin booba lii xewagul li dalaa dab muy xalifa général bi murid bi waaye nag mm, déedéet te jàmbar nit koo xam ne doo nopp lu guddi doo nopp lu bëccëg moom rek da nga jaxas xam ne ku baax la te dara ñëru ko nag ndax fi ne moom li fi mat a am lépp sëñ bi def na ko ba noppi waaye ñu ngi koy sant ci taxawaay yëpp leen téye kii nag di Mamour sëñ Xaadim may sama xarit waaye bu ma demee ba jaxasoog sëñ Xaadim moom mi tax ba sëñ Xaadim di jóg jël ñëw sama kër may dem këram moom mii nag nit la koo xam ne ku ko amoon doo ko bàyyi mu mu mu balaa waaye suñ xaadim moom nayut moo tax moo yëpp di am euh, sëñ Abdou euh, ñu ngi sant sa bàyyi nag kuy def dara ci àdduna fi ne dana ko ci boole ci réew mi xam nga loolu ndax kenn ñëkk ma ko cee tàmbali te man damay jël sëñ sol def ko muy sama xorom loolu su ma jëmee bari te nag mooy mooy léppam kon na nga jaaju te defaru nag lu ñu la yëgal rek demal kenn moomut kenn li ne sëñ Tuubaa ko moom te nag dara yàlla nañu yàlla taxaw di nuyu jànkat yi di nuyu mbooleem ko fi teew rek di nuyu ñii nga xam ne ñoo yor téléphone yi xaw ma nu mu tudd snapeur yi na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen ci ne te bañ koo defub liggéey te liggéey yi da koy def neleen ci te bu leen ko defub liggéey te wuti lu ngeen liggéey ji as gor su nanguwut a liggéey dana goree di te nag ay seen nday ay gor lañ seen i bàyyi di ay gor ngeen ñu dooni gor am na loo xam ne dara jëru ko noonu man de li may tëgg ñu di leen ko wax neexuma dama cee mënul dara wasalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu mu yàggale kàddu yi na ñëpp teewlu da wax ne ñu àggale kàddu yi waaye dafa mel ne kàddu yi mat na ndax euh, daanaka li ma ta wax lépp lépp lépp wax nga ko xanaa kay dañuy jéem rek lu baax moom du doy wet gi nga wax ne ñu wax fi ak dong yi te lañuy jéem rek tant bi ñu tant tant ko ku ko matt mooy Cheikh Mouhamadoul Fadal muy murid sadif ba di roy mat wa di koo xam ne na mu defoon te Cheikhul Khadim ne man kat duma doom du bëgg a doon baayam duma taalib bu bëgg a seex naa ne ci biiram rek fu ñu ko tudd tuddaale ma moo tax tey Cheikh Mouhamadoul Fadal li ñuy tudd Cheikhul Khadim na ko tudd li ñu toll ndax moo ko ñaanoon Cheikhul Khadim tey bu fekkee dañoo tànt tànt tudde ko sant Cheikh Moudou Fadal ku fi ñëw war ngaa bàyyiwaat sa xel ci kan mooy Cheikh Moudou Fadal ci taalibe ga ñu te lañ man ca ngor ga ca tab ga ca woyef ga ca lépp lu baax man maa toog dégg ab njaago di wax ne man njaago la am mais sëñ Fallou mooy sama sëriñ maa ko dégg ci Mbàkke Bawol loolu nag waxin la njaago njaago la du jullit mais su waxee loolu jikkoo tax jikko la la sëñ Fallou nekk ci moom sëriñam ci jikko jikko ju rafet nag bu jamono dee dox ba toll fii ñu toll yëngu bi bari na coow yi bari na waaye murit war naa gën a xamaat mooy kan fexe ba jéem a mat mat lu seen juba taalibe te loolu moo leen su ko am ci dut jikko kon nag tànt bii dañ ci war a parbitoowaat nag ñun ñëpp ñu jéem a takkaat suñuy laxasaay nag jéem a nekk ay murit dëgg-dëgg te nekk muritu jikko te bañ a nekk muritu coow loolu la Cheikhul Khadim soxla ci ñun ginnaaw bi mu nekkee tàntu Cheikh Mamadou Fadal nag ba seydum sëñ basiirum sëñ fàllu du ma wax sax sonn ci ndax li muy def ci sëñ fàllu dañu ko jaar ci Amadou Bachir du ci yëg coono kon mbooleem lu ci def lu ci dox lu ci def ci xéewal ndax ku la dégg na sànq li mu wax ne ñëpp nañ toog xéewal yi dana doy kon xam naa ne fa ndaw ko nekk rek incha allah yooyu doo buuse ak séréer si kon nag ku ne xam ne jëf na ci sonn jëmm alxuraan jeeg xaside yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom dana la jéem a teral ngir màggale ko Cheikh Mouhamadou Fadal waaye ak cantam dëgg dëgg dëgg nag li ko li ko tungoom mooy digganteem ak nga xam ne nit ñaa koy junj rek waaye du kuñ mën a wax comme doon muy koo xam ne doomi Cheikh Mamadou Fadal la ci deret waaye doomam la ci xol muy murid saadix ba ci koo xam ne woyof bu nekkoon ci Cheikh Mamadou Fadal ñëmuñ ne mi ngi ci moom waaye woyof na lool de moom ak tab ga dencalut àdduna dara Seydou May moo ko siif moo ko siif lay wax ba këram jéem mu ko jéem a tabax waaye bu ñu bàyyiwoon Cheikh Bachir ak moom rek du ko gaaw a def de te mën na ko lool kon Cheikh Mamadou Bachir moomu de Murid Saadix bu ñëpp xam muy royuwaayu ñëpp képp bëgg lu baax yàlla dogal muy sa wasiila yàlla dimbale la nag ba nga sopp ko cofeel bu ñëpp xam moo la may li nga am ndax kat ku ñaan ñàkk soo jëndee da nga yaa moom li jaral seex moom Bachir mu jiitu ci tànt bi loolu du ba ngay gone nga ko toppoon weccat goo koy jox taxutoon waaye jox ko jox goo ko jox sa bopp te muy dëgg ci yow di ko guddeel di ko bëccëgal moo ko jaral mu def li mu def tey moom nag ni nga ko waxee rek bi mu duggee ci tànt bi ak pas-pasam ak mbaaxam ak ki mu doon ak diis bi mu diis ci batin bu duggee ci tant bi génnaat nga ne ñu tekki tànt yi doy na loolu lu wér la kon ñu gëm ne bés bi daan na diis lool daan na rëy lool ndax fi ko tuddee waaye ren gën naa diis gën naa rëy ndax ki fi teew tey muy Cheikh Amadou Bachir Serigne Cheikh ñii nag ñëw représenté waat ci guddi gi mu teew fi ci bëccëg ci jëmmam sëñ Cheikh teew teewal ko fi ci guddi gi muy luy dolliwaat di taaral bés bi Serigne Cheikh ni mu ko waxee ci sama kanam yéen ñëpp moo leen yàq ngeen nekk ay tuut tànk ci kanamam fu ngeen riire daanu ci moom it muy ànd ak yéen ba tey ji ñëpp nekk ay mukallaf di am sët kon ànd bi du tey kon nag li ko war moom it seen digganteeg moom. ci jàpp leen jàpp leen ba àgg fu mu mënta weesu waaye yéen jàpp ngeen ko yàlla na ànd bi yàgg yàlla na ànd bi gën a yàgg ci barke Cheikhul Khadim ñaanal Cheikh ba Bachir suñu borom guddal fanam lool te wéral ak cëram yépp wéral cëram yëpp wéral sàmm ko làq ko fa làq yëgut ci barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu Muntaxa mii Cheikh Mamadou Moussa Faliloo ko jur waaye ku jikkoom baax la ndax man euh, Seydou daawaati jéeg bi sëñ bi bi may def bisub Cheikh Mamadou Fadal bi sëñ Muntaxa moom la yabal ku jar a ñaanal la euh, te soxna Bali tamit nag dañ ko koo jox ba muy gone mu yore ko kon sëñ bi soo demee nga ne soxna sant bu baax a baax euh, sëriñ Modou mhm. noonu nga ko waxee rek la gis nga mbir kenn da koo moomut waaye ki ci nekk nag moo ko moom te noonu sëriñ bi la ñuy moo moo nuy rey sëriñ Tuubaa rek moo nuy rey hmm. kenn mënu noo defal dara pour sëriñ bi hmm. waaye bu nu sëriñ bi defalee lañ bari fi noppi nag nii ngeen bank seen tànk yi seen xel yi bank wut kon sëñ bi moom bëriwut bëggul yëfi boppam waaye ku bëgg ci lim am nag da ngay fas yéene doon am jom hmm. nañ leen góor góorgóorlu ji adduna jeex na de ci axuru samaan dañ toll de te fi ne ginnaaw ci lañ toll nag wuti lu baax mënut a da ngeen di too seen waajur yi te yàlla tax sëriñ bi nag boo ma saati ñoo di jox sa bopp day nan ndax tàggoo nga sa waajur mun la déedéet mun la demal tàggoo ji kon waajur da ko fonk kii nag boo gisee moom moom moom moom lu mu lu mu amul mën na koo man dana ko am mooy jikko jee baax sëy bi fonk ay waajuram fonk ay mukallafam kii moom moom ñoo bokk ndey ak bàyyi kii ay xamoo ko kon Seydou bii nga xam Seydou mii nu nga xam nag li tax nga xam ko jikkoom ju baax a tax maamun Seydoo ngoog yaa ngoog sama xarit nga sama xarit la dénk naa la ko na ngeen ànd te yàlla tax soxna si tamit bu ngeen demee nee ko nee ko fuñ toll ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm te di ko defal mbooleem ku ngeen fi tudd rek soxna moom it kebee ku nekk tudd ngeen ko fi tudd ngeen fi ku ne waaye ku ngeen fi mën a tudd rek doomi doomi doomi morit la maa ngi ñoom a yem kon nag yàlla na yàlla taxaw te yàlla musal nu te may nu jàmm yëf yi nag jeexut nun ñii ñooy ñibbi nun waaye ngeen toog fi nag jàng yi jeexut asalaamaaleykum balaa moo ñaan xaaral balaa moo loo ko sant doyut loo ma ko ñaanalal doyut Mamoune dafa baax Mamoune dafa am ak taalibe Mamoune ab murit la ku ma jàpp la ku ma jàppale la mook sëñ Lamine Seck Lamine Seck jàppale na ma lool ak Mamoune Lo Gaydel Serigne Moustapha sëriñ Serigne Moustapha Thiam otam lalaan taal maam moom ñu dugg ci àll bi